di la sargal ah, ka lay sargal nag di sa di sa doom mhm. ñu koy woowee boole mhm. laay ndiir fa tabarakallah ah, nar laa sargal euh, samedi bii di ñëw insha allah le 6 ci kàttanu mhm. suñu borom euh, mooy biir nii bu stock ci kàttanu ah, suñu borom euh, tey ji sa njaboot jooju nga xamante ne wax dëgg yàlla kenn ci sa njaboot yi muy boole boo doon wax ci moom tey lan nga koy wax ak lan nga koy digal ak lan ngay yedd ñi nga xamante ñoom ñoo lay seetaan comme bokk taalibe yaa ngi lay waaw artiste moom lay sonn mm-hmm. moo xam bu diine moo xam bu àdduna mm-hmm. coono da cay ba day bari mm, parce que yàlla dogal na bayre bi ci man jël na ko ba noppi ah, moo tax ay kontaan moo ko fi gën a bari mm-hmm. moo gën a bari kontaan mm-hmm. Mm-hmm. Eh, waaye itam yàlla def na mm, defal na ko jikko ju rafet du mer du gedd ah, alhamdulilah waaye man mii di baayam uh-huh. am na loo xam ne muyu ko nit waaye moom dara naqariwu ko dara naqariwu rek toog naa ci daayira boo xam ne maa ko formé mbooloo ma bari lool mm-hmm. ñaari saay-saay topp ko ba ca mbedd ma mm-hmm. te jotiwul ak ñoom dara mm-hmm. loolu fi la yem fi la yem eh, waaye yàlla dogal na muy nit ko yaru di nit ko dal mu wóor ma ne ma ñooña lu ñu ko dencal la waaye du lu muy def nit moom moom du tooñ tey ku ko tooñ mu jéggala te am na yar am na teggi macha allah euh, loolu muy def itam nag dama cee kontaan mm-hmm. Mm-hmm. ndax wóor na ma ne bu ma deen tey sama liggéey du niil dina ko taxaw mm-hmm. dina ko taxaw ndax la ma koy ëppale mooy may yu jóge ci Alaaji Abdoulaye Thiaw ñëw ci man waaye bu dee woy ak mën a ak xam na muy wooye mhm. dàqatuma ko kon fa tabarakallahu ragalu nu ca fe mu jëm macha allah macha mhm. ah, di wax ne ñun tamit